li ma bëgg wax nag ci li nga xam moo xew Sénégal ku seetaan bu ëllëgee bul euh, yore sa làmmiñ di wax parce que dañoo xam ay organisation de la société civile yoo xam ni fu réew mi mos a jaxatoo jaxasoo dañ daan gën di wax waa léegi ana ngeen léegi yéen gis ngeen ne waa coalition sàmm sa kàddu ñooy dem di karaate karaat kar nañ nit ñi dëkk yu baree baree baree bare ndar da cee gën a ndax ndaxte noo cor nit ñi waa léegi buñ demee ba ab coalition yore ay armes di cor nit ñi yéen ñi xam ne yéen lañ mos a dégg ci Sénégal waa société civile bi mais tey lu tax ngeen ni pat pataaral seenu roq kenn déggu leen lan ngeen di xaar pour wax ku ci mel ni Alioune Tine ak ay Moundiaye Cissé ak ñu mel na ñoom lan ngeen di xaar pour wax ci lii télévision tappalekat yi nga xam ne ñoom opposition bi lañ daan attaqué bu fitna amee tey am nañ jafe-jafe parce que xanaa ñëmu ñoo taxaw naan pouvoir bi la léegi moo tax yéen ñi nga xam ne yéen normalement waru leen a farak kenn da ngeen a war a tëdd njaaxaanaay mais lan ngeen di xaar pour wax bu leen bu leen bu leen bu leen gàcceel mukk seen bopp nag di génn naan di équilibrer ak di ak ak di généraliser ki tooñ ngeen di dut baaraam ku bëgg jàmm ci pénc mi ki tooñ moom ngay dut baaraam ne ko yow yaa tooñ bu ko defee kenn tooñ nga ne ko muñal mu muñe ko leen ko tooñ mais ku fi génn ci yéen yéen société civile bi naan dangay ngay jéem a équilibrer ak naan politiciens yi ñoom ñëpp a yem ak naan yéen politiciens yi wut leen jàmm violence bi ci politique bi na dakk mais di généraliser te du ngeen dut baaraam ki tooñ bu ngeen ko defee ay naafeq ngeen bu dee da ngeen ne pat ni ngeen ne pat pataaral nag toog seen ruq te gis ki tooñ nangu leen ko dut baaraam ça veut dire que yéen bugg leen jàmm am ci réew mi te bu ëllëgee daan leen ko fàttali lii xew ci réew mi munu leen a noppi lii waa ànd sàmm euh, waa sàmm sàmm sa kàddu gii ñu am ab coalition la bu tekkiwul dara mënta gagné benn département mënta gagné benn commune mënta gagné benn centre de vote ñoom ñooñu nga am ñoom ñu ëpp ci ñoom seen bureau de vote dañ leen faa nar a gagné amuñu benn représentativité au Sénégal tekkiwuñ dara ba noppi di karaate nga xam ne nit ñi mën nañ leen a nappaaje parce que foo leen gisee ñu ànd ay oto yi kese la ñuy am mais amuñu am mbooloo moo am moo leen dar ku mel noonu bu dee dem di karaate ça veut dire que wax dëgg yàlla day xaru te day tooñ yéen nag da ngeen fee war a nekk tëdda njaaxaanaay mais ngeen di seetaan lu mel ni am Sénégal kenn déggu leen ci te bu ngeen ci dee wax ñeme ngeen a génn naan politiciens yi ñëpp a yem nañ wut jàmm di jéem a euh, généraliser alors xam ngeen ki tooñ dama ni réew boo fa nekkee te yow nga bokk ci régulateurs sociaux yi soo gisee camp boo xam day tooñ da dem ci camp bi tooñ nga ne ko yaa tooñ loolu mooy indi jàmm mais bu ngeen généraliser naan politiciens yëpp a yem ay wut leen jàmm yéen politiciens yi affaire yooyu su ngeen ko waxee ça veut dire que yéen ay naafeq ngeen su ngeen seetaanee tamit bu ëllëgee bu leneen amee ci réew mi bu leen ci kenn dégg lii da ngeen cee war a am position taxaw wax dëgg ñi nga am ñoom ñooy tooñ bu ko defee ñen tooñ ngeen defal leen loolu mooy seen rôle mais bu fekkente ni nag da ngeen a jàpp ni bu fekkente ni yéen seen camp bi ngeen bi nit ñi njot ni moom ngeen far bu ñu tooñee kenn du leen ci dégg ça veut dire yéen du ngeen société civile bu neutre société civile dañoo war a taxaw tëdd njaaxaanaay bu amee ñu tooñ ci pénc mi ngeen dut leen baaraam ni leen yéen yéen a tooñ te ñépp gis nañ ni benn coalition moo fiy karaate muy la coalition sàmm sa kàddu ñoom ñoo fi yore ay arme di kar nit ñi mun leen nag toog ci seen nduq lu mel nii am Sénégal te tey jii bu doon tey jii parti au pouvoir bi moo fi xusi woon nit xusi laa leen wax xusi parti au pouvoir su fi xusi woon benn nit yéen ñëpp da ngeen takk seen i rajo fu ngeen dem fay wax émission bu nekk ngeen fan naam dramé di attaqué nguur gi léegi nag tey jii nguur gi lañ attaqué te pourtant nguur gee yore doole ji parce que nguur gi su fayoo musiba am parce que doole ji nguur yor mais waxuma la sax nguur gi nguur gi nee laa koy tege dama la doole ji Pastef yor su fayoo musiba am kon nag yéen war leen a toog di seetaan wax leen dëgg bat Barthélémy Dias mii ak ay mbokkam wax leen leen dëgg parce que seen gii gi mënta continuer de ci nii wala ci naa day arrêté comme ni ma ko waxee sànq nag man saluer naa la responsabilité du ministre de l'intérieur ba nga xam jël na ko mettre hors d'état de nuire tapp euh, euh, euh, ñi nga xam ñoom ñoo bëggoon a faagaal faagaagal nit ñi à partir de ce qu'ils ont fait à Saint-Louis ñu bëgg koo lawal Sénégal ñoo taxaw jël leen mettre leen tous hors d'état de nuire loolu la ñuy xaar ci état état jël na ay responsabilités kon ñu ngi koy rafetlu parce que ñun réew mi jàmm lañu fi bëgg réew mi soppeeku na. te réew mi day dem de ñii seen réewande gii ñuy def ku fi wone réewande bu élection yi jàllee parce que effectivement comme ni ma koy waxee man man sax jàpp naa ne li ñu def nii baax na bu ñu fi jàppee candidat tappalekat yooyu nga xam ne tekkiwuñ dara bu buñ leen gañee dañuy taxaw ne looloo tax ñu gañe leen comme ñeenti fan a des nañ leen leen bàyyi ba élection yi jàll ñu bàcc leen bàcc yu leer nañ partout au Sénégal ñu dóor dóor leen fa dóor yu leer nañ léegi nag bu ñu paree ku fi wone reewande def loo wër ta def yoon tegu sa kaw bu ñu la waree jàpp tëj ci kaso bi ñu tëj la kaso ci kaso bi yar la comme sa waajur bugg laa yar yéen ñépp nag yéen a ngi gis ci teg seen bët lii coalition boobu nekkee nga xam ne xam nañ ne ñàkk nañ élection yi mais comme xam nañ ñàkk lañ élection yi fi ñu doon nii nunu yàq élection yi pour élection yi du àgg loolu lañ bëgg te mënuñoo tee élection yi am incha allah le 17 novembre 2024 les sénégalais vont se mobiliser et je profit de l'occasion pour demander au patriotes que ak les sympathisants de PASTEF que sanction bi gën a sévère parce que tey gis naan yéen ñëpp comportement bi Barthélémy Dias am ak ñi àndal ak seen reewande gi ñu àndal metti na leen léegi nag gis nga nu li leen metti noonu pour ngeen saafara ko du ay waxi kese dem leen jëli carte électeurs yi nekk ci euh, sous préfecture yi ak préfecture yi y a des milliers et des milliers de cartes d'électeurs yoo xam ne département boo dugg carte d'électeur yaa nga fa ne xuus seeni borom ñëw ñu jël si ko kon bu ngeen bëggee wax dëgg yàlla li leen metti nii ngeen wut ci ay saafara dem leen jëli seeni carte électeur ngeen voté massivement le 17 novembre 2024 pour que le taux de participation mën a élevé taux de participation élevé bi dafa am avantage dafa am un double avantage boo amee un taux de participation élevé yow mi am yaa ëpp doole nga votel massivement sa parti muy Pastef da koy permettre mu gagner l'ensemble des départements su gagner l'ensemble des départements donc day jël raw gàddu la day jël liste yi nekk ci la euh, majoritaire bi liste bi nekk majoritaire bi yépp bu nu ko gañee nag ci fii ci Sénégal ak ci diaspora bi ba pare nag ñu dem xëccoo ak ñoom la liste nationale parce que voix yoo am ba gagné liste majoritaire yi am ci département bi ak ci diaspora bi léegi dalay lay permettre voix yooyu lañ lay calculer waatal ci quotient électoral bi maanaam ñi voté ñëpp bu ñu paree dañuy xool ci liste proportionnel bi ku ci nekk ñaata voix ngay am pour am benn député fekk yow mi am mi nga am si yow yaa majoritaire gañe nga député yi nekk ci majoritaire bi yëpp ba pare ba téye ko léegi nag mu des nag député yi nga xam ne ñi ngi ci proportionnel bi proportionnel bi nag neen koy calculer mooy voix yoo am la ñuy wàññi bu ñu nee quotient électoral bi par exemple mi ngi ci quarante mille voix wala quarante cinq mille voix ñu ni quarante cinq mille voix yoo am au niveau national may na la benn député sur la liste national kon bu ñu bañee ñi nga xam ni amuñu benn njariñ te list yu bëri yoo ci jël li benn bi ñëpp xam nañ ni ñoom ak réewande rek lañu fi woneegun bi élection yi euh, bi campagne bi dooree ak léegi ñoo ñeneen ñet ñu ëpp ci ñoom mbalaanu kiiraay la ñuy wut muy liste Macky sàll muy liste Amadou Ba ñoom ñëpp mbalaanu kiiraay la ñuy wut waaye poste député ak défendre askan wi ak ay voté ay loi intéressé wu leen waaw léegi nag comme ñun xam nañ ne ñoom réew mi ñoru leen ñu bëri ñoom seen bopp rek leen ñor ak leen fi luubal ak leen fi rey ay ay nit leen war a leeral loi d'amnistie bi ak li ñu war a euh, réformer réew mi pour tegaat réew mi ci yoon loolu la ñuy bañ pour ñu xam ne réew mi guléet mu am gouvernement bu leen bëgg guléet mu am nguur gu leen bëgg loolu tax ñu nguur googu am une majorité à l'Assemblée nationale kon nag yéen ni ngeen di voté mooy voté massivement parce que su ngeen voté massivement le quotient électoral day te quotient électoral bu élevé tappalekat ci suuf yi nga xam si plus fort reste la ñuy xaar duñ mën a am plus fort su ngeen voté massivement la liste passive mu gagné l' ensemble des départements ak diaspora bi voix yu bari yooyu muy am da koy permettre en même temps liste proportionnelle bi mu jël la ca ëpp ba nga xam ni ñi nga xam ne ay quinze mille voix la ñuy am ak ay dix-sept mille voix ak ay vingt mille voix duñ mën a am député maanaam plus fort reste ba ba ñuy yaakaar duñ ko mën a am parce que bu boobaa euh, député yi ëpp dañ koy euh, gagné donc la liste Pastef da koy gañe ba nga xam ne lay des mooy des ba nga des wa nga xam ni ca la mbojo mbojo yi di xaar pour am poste député léegi bu ko defee tuutee cay des bu ko defee ñu séddoo ko bu ko defee assemblée bi daanaka ñoom tappalekat yi duñ fa duñ fa duñ fa duñ fa duñ fa am duñ fa am wàll lii mooy enjeu wu élection yi élection législative yi c'est pour accompagner le régime en place pour que référentiel bi mu leen présenté vision deux mille cinquante mooy ñaar fukki at juróom yi nu jëm euh, juróomi at yu ci nekk ñu séquencé ko ba lu ci nekk liñ ci war a def wax nañ leen ko ci référentiel bi diviser euh, gox-goxaan yi def ko juróom-ñetti pôle yoo xam ci lañ nar a sukkandiku pour développer Sénégal réforme yi mu laaj pour nga mën koo def il faut nga am majorité à l'Assemblée nationale et une majorité qualifiée loolu nag mooy enjeu wu élection bi